donc tamit ministre euh, de la famille du genre et de la protection des enfants Nous sommes de vous ñu am ci de bu baax Euh, gisuñu koo xamante ne tey jàppale nañu ci tey jii dinañ ko def mais dina am benn manquement donc elle n'a ménagé aucun effort pour réussir tout euh, euh, projet bi donc daf ci jàpp soutenir ñi bu baax ñu koy gërëm bu baax donc tamit di ko wax ne tey jii bu ñu waxee ne moom ministre la femme la gëm nañ ne ku njaboote jigéen la ñun de faatu faatu yi mun nañu firndeel loolu tey et que ma xam ma waxal leen le du benn relation bu ñu am ak moom dañu ko euh, adressé en tant que jigen mu nek ministre jigen ni mu dal li ñuy wuyu donc ñi ngi sante bu baax ci téwayam di ñaan première édition bi dem ba nek 20 édition li ñu motivé moy dañuy gis né jigen ni tout temps dañuy pan mais duñu xam lan moy lan moy pan da ngay gis jigen bu pan nek ci tali bi jaaxlé da ngay gis jigen bu pan wanoon dépasser ci auto ben 30000 tay dépasser ci ben 1 million 500 ngir ñaka xam donc dañ ko def pour ne serait-ce que ñuy mëna def ay réparation préventive manam réparation yo xamantene ne dina la coûter moins donc lool motax ak tamit comment décrever xam nga dafa rafet sax nga gis jigen ci tali muy décrever boppam c'est beau à voir té ñi ñi jot formé gis nañ affaire bi dañ ko def ak facilité système la c'est pas diable système la. tey ci mois de mars bi nga xamni ko jagleel jigenu Sénégal je pense que tey fierté la pour ñun en tant que ministre en charge de la promotion de la femme C'est si jigen ñu melni yeen wax naa leen sànq dañu war a wane en exemple parce que quand même si ñuy wax jigéen Sénégal rek yéen defe ci première ligne bi taxaw parce que yàgg naa leen suivre yàgg seen taxawaay yàgg vous di góorgóorlu pour un garage bi nga que vous da tout petit di jàpp moom renouveler aussi un engagement aussi en tant que ministre en charge de la femme la promotion de la femme c'est déjà pas pour ngeen jóge fi ngeen nekk jëm ci kanam parce que veut former on va avoir des champions. dans tous les domaines mais particulièrement dans le domaine de la mécanique auto pourquoi pas parce que defe ni ñi a am ay grand garage goor jigéen ñi le savoir faire am la formation qu'il faut donc il suffit juste de les pousser un peu pour accéder à ce niveau tax vraiment ñu am fierté am ci aussi vraiment engagement bu ñu renouveler ci jappalé len ci lepp lo xamné ne ngeen bëgg pour vraiment euh, pour aller de l'avant donc félicitations encore une fois ci liggéey bi ki ici c'est une fierté pour toutes les femmes ici présentes aussi fierté pour toutes les femmes du Sénégal de voir qu'il y a des jeunes dames qui sont vraiment mais qui sont, sont vraiment engagés dans, dans le travail qu'ils sont en train de faire et de le mener de, manière si, si, si, efficace et vraiment de très belle, manière. Donc nous les féliciter et encourager. Vraiment, euh, merci encore une fois d'avoir donné cette euh, opportunité aux femmes mm, de suivre cette formation, une formation qui est très importante, je pense, parce que comme vous venez de dire, les femmes ne connaissent pas en fait l'automobile, ne savent pas comment décréter les roues, ne savent pas comment peut-être réparer une petite panne qui peut peut-être coûter peut-être 1000 ou 2000 francs, qui va coûter plus tard 1 million de francs si elle n'est pas bien dépannée. Donc, euh, merci de nous avoir offert cette, formation, qui est une formation vraiment qui vient à son heure, vu en fait l'importance et le nombre de femmes qui conduisent actuellement des, véhicules dans le Sénégal. Merci à Fatou Fatou et félicitations et encouragement.